bu baax sama mbokki donga yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bi sëriñ Basiiru Mbàkke mi ñu toog ànd ak rakkam sëriñ Moodu Mbàkke ak si Abdu Mbàkke ak mboolem ñi nga xam ne it ci waa a ji ñoom sëriñ Mbàkke Jóob sëriñ Xaalim Mbay ñoom sëriñ naa bu bëggee lim ñëpp mën naa leen bàyyi ak ñoom bàyyi fàllu ci rek ñu ngi leen di nuyu di leen jataay bi yaakaar naa ku fi yàgg rek xam nga li ko sabab mooy ay bokk yoo xam ne dañoo nekkoon ci barab bi fa sàkku xam-xam gannaaw bi ñu fi jugee ñu yëg ne kat jaadu na ñuy ñëw di nemmeeku sunu sëriñ daara jotaayu nemmeeku rek la boo xam ne ñoo ko warlul ci sunu bopp di ñëw di ko jëme ci sunu sëriñ daara bii ndax kat defal nañu loo xam ne sunuy woy ju defaluñu ko ndax ku la jàngal alquran ba nga man ko manin wa gën a rafet te diir lu la ko jàngal lépp sàrtuntewul ak yow lenn loo xam ne war nay jóge ci yow di ñëw ci moom loola day lu rëy ci nun ndax fi jamono toll ak njàng nii ngir nga jàngalu faaw nga génn dara ci sa poos doo ko mën a waaye moom yàlla defal ko taw tawfiq ba mu sosee daara ji ba léegi nam doon doxe ba day soppiku te loolu man mi mat naa ji seede ndax yaakaar naa may ab dongaam bu njëkk gannaaw bi mu euh, sosee daaraam man may ab dongaam bu njëkk kon daara ji lu ma ciy wax rek xam naa ko te sama nekk fay nekkul diir bu gàtt laa ko dafay diir bu gudd laa def ci moom kon xam naa ko lu baree bari gannaaw ba ma fa jugee yi luy xew ci daara ji dara umpuma ci ndax maa ngi ciy waxtaan ak moom kon sëriñ Modou damay wax ne mat naa ci moom seede nit ku jàmbaare la nit ku dëggu la nit ku dogu la Mahfouz yaay xamante ak moom di soppiku waaye moom na mu meloon te ña ko xamoon démb ba tey rek maa ngi ciy waxtaan ak sëñ sëñ Mbacke Diop mi mu naa ko sëñ Mahfouz moom moom ni mu meloon ba léegi noonu la mel day mel ne moom toppul jamono ay moom fi mu nekk rek la nekk ba léeg-léeg lu bari sax ci lay xew boo ko bëggee imposer da ngay sonn ba rek waaye moom ca la nekkoon rek la nekk loola nag xam ne ndimbalul yàlla la loo xam ne sunu boroom moo ko ko defal di koo xam ne it liggéey bi muy liggéeyal yàlla ci alquran daf ma musa wax ne ma. sëñ Tuubaa dafa waxoon ne képp koo xam ne toog na ci dëkk bi di ko jàngaleel alxuraan loo bëgg dana la fekk si waaye koo xam ne nag defoo ko loo bëgg rek mel na naar yi di ko wut loola nag yemul ci wax ko moom sëñ Moodu Maxfuus waaye daf koo daf ko dëggal muy daf koo jëfe mbooleem li luy ay xeeti privilège yoo xam ne nit ko war na koo mën a am yépp daf koo gàddaay wan gannaaw lépp mooy ci téere borom subhaanahu wa di ci liggéey liggéey bu mucc ayib te ku xam ñu mu jàngal alquran da nga xam ne liggéey bi muy def liggéey bu mu xereñe la ndax man kenn laa ci ñooñu te yàlla def na tawfiix ñu baree bari mokkal naa leen alquran sama loxol bopp kon kii tax ma man loola mooy moom mii bu doon lam ma jàngal baaxul wala wérul kon gannaaw bu ma fi jógee kenn du wóolu ba may jox daara jiite naa daara joo xam ne mat na ñett téeméeri nit la fa ne jàngalekat mat nañ fi nit ak juróom te man maay directeur ba kon loola la ma ko may mooy Serigne Modou Mahfous mii kon man ci ñi ko war sant fu ma toll laa bokk bu ñëpp toogoon seeni kër man warumaa sama kër waxtu wu ne damaa war di xam li xew ci daara ji ndax xam naa li ma fi jële lan la te man kenn laa ci nu ñooñu rek su ko defee dañuy jox Serigne Abo Jaxate moom Serigne As mu defar ñu benn jàngat bu boo xam ne ci ñun dongo yi la koy jëmale ci soññaan ñu ci ban taxawaay lañ war a am ci d'abord ci lu mel nii maanaam nit ku la jox alxuraan ku la jox xam-xam ba nga jóge ca moom lan moo la war sa diggante nuyu bu baax di leen ziyaar nuyoo bu sell bu barkeel bu tey bu dëppoog ne lu suñu borom santaane ko mooy asalaamaaleykum di sox suñu kàddu ci kàddu si Abdoulaye jël nuyoo bi ak siyaar bi teg ci loxo Serigne Cheikh Gueye téere bu defee tuddee ci barab bu mel nii keneen ku ñëwaat rek mën nga jël sa wàll ca leen jëmale ci ndax pas-pasam ak pasteefam ak doxinam ci alxuraan ak ñooñu alxuraan yàlla ko yàlla fayal yi di leen sant bu baax a baax di leen gërëm waaye di jégalu nag ci yëkkati bi ñu yëkkati kàddu ci seen kanam ndax xëy na. lu mel nii man na am xamee woon ñu ko di ko def waaye nag mbirum alxuraan moom fu ñu ci joxe ni rek dañ koy daal di jëfe ci barab bu ne rawat nag ci barab bi nga xam ne sëriñ Mahfouz Diop moo koy taxaw di ci jàngale alxuraan di yare di borom taxawaay bu kawe taxaw taxawaay bu rafet taxawaay bu boo xamee ne nii defe naa foo ëpp àgg rek daañu xam. taxawaay yu am solo yi taxaw na bi na loolu yàlla gën a yàgg wala sama borom def lu wér ba lan cee yéene lépp pour mën koo nam ko bëgg ba ci Cheikhul Khadim di sàkku ci mboolem ko nga xam ne mooy dëgëral ak jaamam jàppale ko ba lépp lu mu bëgg mu mën ko defee nan ko bëgg ñëpp ñu mas a ñaanal ko lii nuru ay nattu sama borom ko ko ba mu gën a mën a wéy liggéey ndax kat moom wax dëgg yàlla eh, jamono soppeeku na ba xereñ nañ doomu aadama àgg na ci lenn lu ne liggéey liggéey nañ ci boo xam ne saxatul ci benn place day wëndeel waaye mën naa ne moom daara ji mel noonu la daara joo xam ne nii day day saa yu gisee muy rek mën nga ne daara ndax ñun kat ban ko xamee fekk mu jugee ci daara ju mag jële ñëw di jiim la neen daara jo moo dem ba nopp loola nga xam ne kon ndeke jëkk moom ci alxuraan képp la nekk loolu nag eh, jamono moo na ko xamal nañu lépp la gisoon mu sax fi benn barab rek man naa dem ba soppiku fu waaye jëm ànd ak moom xam naa ne la imaamu Shaafi'i yi waxoon ne ay limaa yi ay suma yem moom tëjat baaxoon bi sadri yi xaaru la bat na suñ suñ duux yi in kuntu fil bayti kaana al ilmu fiihi suuxi kaana al ilmu fi suuxi loolu nekk na ci moom moom joo xam ne nii foo ko fekk rek mën nga ne ci loolu la nekk yàlla na ko yàlla saxal te yàggal di sant bu baax na ak a gërëm suñu mbokki talibe yi ci lii ñu taxaw mën naa ne nit taxawul lu gën a rëy bi bis booy def ngir delloo ñu ki la jàngal alxuraan nit taxaw la ko gën a rëy ndax Serigne Touba daf noo xamal nañu ki la jàngal alxuraan lépp loo lu baax moo ko def ci yow métier sax boo ko jàngee xarañ ko jàppal ne ki la jàngal moo la ko jàngal Serigne Touba dafa wax ne kitaabu xayril wara aslul ulumi maa fa huwa alkitaabu xam-xam yi ci adduna yépp seen cosaan mooy alxuraan alxuraan mooy gisaane xam-xam yëpp loolu nag man na ma ko déggee mooy boo jaaree ci daara ji ba ji ci wala tukuwaat nekk maçon di tabax tabax ba di tege ci yoon li ma yéen da ngaa war a bàyyi xel sëriñ daara ba la jàngal loolu alxuraan lépp loo xereñeet rek ci barkeeb loolee ci la bàyyi ko boo gisee ñeenti alayhi salaam ñu naan mooy al muallimul awwal mosuñoo gis fu mu ubbee place di jàngale menuisier wala di jàngal leneen te moom la ñuy wax al muallimul awwal mooy ki njëkk a jàngale ndax moom la sama borom wax la mu bëgg nam ko ko waxee mu def ko ci ay nit ñooñu am ci ñoom li ñuy wax amaana kóolute ba dootuñ nax kenn dootuñu wor kenn dootuñ def naka su dul noona a tax buñ leen jugalee ci beneen métier ñu ma ko kon bu fekkoon ne amuñu baasu pas-pas bu rafet akub wóor akub mbaax ba tax bu ëllëgee bu ñuy jàngalee bi rek noonu koo xam day mel na leneen lu ñuy jàngal duñ ko xam wala buñ ko xamee duñ ko xereñe wala buñ ko xereñee duñ leen ko jaral waaye ki njëkk ci yow def ci yow jikko yu ba tax Alex bi doy na jox sa xel di bàyyi xel sëriñ daara boobu te defe naa ngeen xam ne moo boo demee bu jógee ci daara jël xel nekk ci def na sa xel fekk leen njëkkoon a yor bu diw yëgee wala bu ma diw gisee wala bu ko déggee loolu moo lay arrière ginnaaw nag loola kon sëriñ daara moo ko def ci yow mooy ki xam ne loo xere ñett nga ne moom la kon sëriñ Mahbous yàlla na la yàlla fay ci loola waaye yéen ñii ko taxaw tam yàlla nañ ci yàlla fay yaakaar naa nag waxtaan ak yéen ci lu jëm ci njariñul toppatoo barab bi nga jaaroon woo waxtaan moom du sori ndax dañ leen cee ndax ku xas taxawal mbir rek xam na njariñ la ku xas taxawal mbir rek xam na njariñ waaye fàttali moom ci mbir am na ci solo loolu wàññiwul dara sëriñu daara di ab jàngalekatu alxuraan day koo xamee ni nii laata ñuy egg ci ñuy jàng moom sëriñu daara ci boppam dafa am lu ko war la ko war mooy ginnaaw ba mu xamee te xam ne xamalul ko des koo xamal moom dafay jàpp ne am na bor bu tegee ci ndoddam te mooy xalal ak xal moom li ñu defoon ci moom mu def ko ci ñeneen ba nga xamee ne bu ëllëgee loola moom du du saaw wala loolu du tasaaroo comme moom jàngalekat bi ginnaaw bi mu xamee am na lu ñu moom loo xam ne ngëneel lu yaatu la mu xam ne am na sasoo nag loolu mu fas ko yéenee àggale ci ñeneen bismillah ginnaaw bi mu góorgóorloo itam ba yàlla def mu samp barab di fa jàng ak di fa jàngale lu mu ko xereñ xereñ ak nu mu ca farlu farlu ak nu mu ca jàmbaare jàmbaare buñ ko fekkul jox ko ab donga ko itam loolu du naa sotti kon il faut moom mu taxaw ne dama bëgg a jàngale waaye il faut itam am ñu ñëw bëgg a jàng ñu ñëw a jàng ay gone lañ yoo xam ne xamuñu dara il faut seeni waajur ñu leen fayal il faut tam am lu ñuy jàng kon ñett ñeent moom mënta ñàkk jàngalekat bi ak kii jàngulu ak kii jàng ak li ñuy jàng jàngalekat bi mooy kii jàng ba xam ba ba dañ ak réer ba yàlla def li nekk ci moom mu xereñe ko xereñe mu ngi ko jàllale ci keneen kooku mooy jàngalekat kii jàngalu mooy ki dëkk ci koñ bi wala mu xam jàngalekat bi xam ne kii kat am na lu nekk ci moom loo xam ne mënuma koo ñàkk mu fas yéene jàpp ci loxo doomam andi xale bi indi nag mooy ku ndaw ki nga xamee ne xamagul dara moom itam mu fas yéene nekk ci loxoy sëriñ bi sëriñ bi def ci moom xam-xam li ñuy jàng nag moom du sopp ko mukk mooy téere bi nga xamee ne laa ya'tiihi l-baatilu min bayni yadayhi laa min xalfihi wa huwa al-qur'aanul kon di jiitu ci ginnaaw bi jàngalekat bi amee infon ñi nga xamee ne ñoo dëkk ak moom wala ñu jege ko wala ñu xam ko ñu am warante ñoom itam fas yéene jàngaloo seen i doom xam ne kat moom am na sens boo xamee ne nii ni ko mën a waxee ña jiitu woon amuñ ndax ku baax ci sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy jàngal fekk na mu làkk ci at ñeent fukki at yow nag yàlla def nga am juróom-benn at juróom-ñaari at ñu fas la yéene xamal tàmbaleeg yow fañ tàmbale woon ak yéen bi alayhi salaam loolu ku ko xam ku ne doo jël sa doom di ko yóbbu ci dara lu muy alxuraan karim ndax te moom ñeent fukki at la am soog a am tawfiixu li jot loola am juróom-benn at am tawfiixu ñëw la kon wajur bu ko xamee noonu dana xam ne alxuraan moom lu mën di xew maanaam mooy lu war a jiitu ci njàng ndax keroog bi nga xamee ne Seydina na ñu ci alayhi salaam ne ko jàngal ñëwoon ji ko du ma koy jàng du koy jàng mooy ñi ma bokk fi ma bokk ay ummi ñun lañ nit lañ ñoo xamee ne nii seen i waajur ñoo leen tàggat ci aw yoon yoon nag ñu leen jaarloo rek ci lañ a jaar waaye laa yaarifuuna xiraata wala kitaab xam duñ duñ xam nañu jàngee duñ xam nañu lu ñu bindee mu ne ko du ma jàng Seydina Jibril dana ko jàngal mu ne du ma jàng ba ba ci yoonu mujj woo fa mu jaar moom ba mu nangoo wax la ko Seydina Jibril wax nekkete boobu kon Seydina Jibril ñu ngi jàngal nit ñi ni ñuy jàngalee alxuraan mooy xale bi ñëw ci yow xamul dara waaye nag jumtuwaay yi tax a xam moom ñu ngi ci moom ndax wallahu axrajakum min butuni ummahatikum laa taalamuuna shay'an waaye nag wa jaal lakum sama wal absar wal afida yàlla bi mu leen di indi ci jamono xamu leen dara waaye jumtuwaay yi tax xam na yëpp mi ngi ci yéen mooy nopp bi mi ngi dégg gët yi mi gis làmmiñ yi tam mi ngi mën a wax kon jumtuwaay yi moom sama borom moom euh, noppi na ci ba nga xamee ne xale bi noppi na ngir xam te jàng jàngalekat bi tam xam na ni muy jàngale ndax nee naa la ñu leen di sallallahu ñu ko waxee ne ko ne ko jàngal dana du ma koy jàng yoonu ñu teeloo fañ jaar ak moom ba mu nangoo jàng foofu mooy yoon yi nga xam ne te mooy tawjihaat ak irsaadaat yi ngay jaar ak xale bi ba nga sa tànk yi téyel aliwa ji xoolal fii waxal nangam ba keroog muy man kon léegi moom maanaam euh, ginnaaw bi seen daara bi mënee loolu lépp xale bi tam nag waajur bi daa war a xam ne yàlla jox na ko nit ku sotti koo xamee ne ku ko jaarilewul fële des na ko laaj xel ma ma joxoon sa doom nopp ya ma ko joxoon gët ya ma ko joxoon lan lañ lan moo tax jàngoro bi jëriñ sa borom kon loolu tam lu am solo la lu mat a bàyyi ma tax bàyyi xel ki nga xam ne tam moo nekk ci koñ bi jege daara ji jege jàngukaay bi moom itam daa war a xam ne lépp euh, ku yor lu baax wala ku yor aw yiw bu la jegee yow mi rek da ngay xam ne yaa ngi kii woo boo ko yëgee ak boo ko yëg ndax tey jii kat euh, jaaykatu moom mu jaay parfum daanaka mën naa ne xel xel gu safaano du du la moom ndax yii woowu di bàyyi ko ci moom moom moo maanaam xel gu neex boobu muy ñëwaale ci yow moom ci mën a jëriñ daara nag kaaraange la ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na eh, ku jàng suuratul baqara ci benn néeg ngir bëgg ngërëmul yàlla da nga ko am te néeg ba baqara ak imran ku ko jàng ci néeg daana am ñetti fan yooyu seetaan bi fa jaar kër gu ñuy jàng nag na nga ñu baqara na kër googu day am kaaraange kaaraange jóge itam sama borom mënta aar kër gi te aarul ni ko li wër kër gi ndax eh, nettaliwu ma ko waaye ba safaan jóge woon ci geneen kër bu fekkee aarul kër yi ba safaan bi dugg ci kër yooyu mën naa egsi ci barab kon aar bi yàlla na sama borom di aar barab bii ci lay kër yooyu ko wër kon ñoom itam ñu yëg ne ñoom ñi dëkkandoo yi ñu yëg ne ñoom daara ji mu leen di jariñu njariñ ne nii buñ ko xamee ak buñ ko xamul bari na lu war a egsi ci ñoom kër gi rek moom moo ñor suñu borom aar daara ji rek moo ko ñor ba aaraal leen ci xaw maa kaana laa kon yàlla sama borom ni nga xamee ne yow boo bëggee sàmm xaalis bi nga denc ci biir gaal da lay jëral wut kànnaar lu baax tëj gaal dootoo yam te jaar néeg bi te jaar kër gi wutum gardien boole ci xam nga noonu ngay def ngir mën a aar li ci biir gaal suñu borom tam noonu lay def saa yu bëggee aar daara ji li wër daara jëpp day aaraale loole ci kaaraange yi kon ñun ñi dëkkaloo yi daara tam ñu xamee ko noonu ñu xam ne que daara ji lim ñuy li ci gën a tuuti mooy xamal bari aw yiw woo xam ne ni ñuy exécuté borom ci daara ji la koy jëlee bëgg waa bëgg ñi ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo daara ji jot ci yiw wa ba daara ji bu ci jotee la mu yor mën ko jëriñoo waaye bari na salaan boobu mi ngi am faneen di ci ñaar maanaam am faneen ñu ñu jéem mucc liñ ci mus muccale liñ ci musal weesuwul lu mooy sama borom daara ji la bëgg a aar mu aaral li war kon ñoom ñoo xam ne loolu mooy seen li ci des moom muy téere bi bi moom xel mën na cee dal ndax dinaa suñu borom moo ne innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun kon loolu moom xel mën naa dal ci ne téere bi moom aaru na ba noppi suñu borom dana ko war dana ko aar damay xalaat léegi rek ne defe naa bu ñu ne Muhammadul Mahfouz nga gis inaan na nga xam ne nasala zikra bi naa wala xaar rasul dañu daal mën a xam ne moom am na benn cër boo xam ne sama borom defal na ko ci turam te mooy xefsu boobu sama borom def ci téere bi far yàlla def na loolu moom feeñ na ci aw turam te suñ tubaab wax na ne fa kullu xar bu kulli musamman ñun sumaaxum sama kenn ku ne la kañ la tuddee da ngay yéen a jël aw tur galoo la donc ginnaaw moom Muhammadul Mahfuz la te suñu borom la wéy naa la wala xaar rasul kooku tam xel mën na fàttal kon ñu xamee ne kon suñu boroom andi wuñu fi rek ngir ñu nekk jëmm yoo xam ne dañ naan diw yewwu na diw mi de bu jànge woon nangam dana ko xam déedéet bu njëkkewul ci alxuraan lu mu jàng du ko xam bu ko xamee du ca jariñu du ca jariñu keneen du set yaa ngi xool ci eh, maanaam internet bi di gis nit ñi wane ay xerante yu yéeme ay yewwute yu kawe yoo xam ne nii kenn du leen mën a jàppale ba mu fekk nga jàpp ne dañ leen a sàggane fekk déedéet dañoo amul fondation bu baax te mooy alxuraan day jiituwul ci yow alxuraan bu jiituwul ci yow leneen loo amati na nga koy jëriñoo alxuraan moo koy def ci yow il faut nga jëriñoo ko il faut nga jëriñoo ci daara day néewaane nga dem ci daara ju mag gis leen ñu génn bunt di ko daal ñu ci biti lu yàqu rek mën nañu ko defaraat ci biir daara ji nga xam ne kon eh, yawute boobu ñu am ci biir daara ji tàmbali nañ koo jëriñoo tàmbali koo jëriñoo te demaguñ fa nekk kon loolu la loolu ñu xamee ko noonu te xam ne moom gone yi moom buñ bëggee ñu mën a jëriñ seen bopp mën a jëriñ keneen il faut moom ñu jàngu leen alxuraan ci wàllu dëkk damay faral di wax ne alxuraan moom jàpp ko fondation sax eh, bu amoon lu ëpp lu ëpp lu ëpp solo fondation dañ naan moom mu ëpp solo dañ naan kon loolu alxuraan noonu ndax fondation amaana boo ko defee ci njëlbeenu tabax bi amaana doo ko waaye nag dëgëraay bi mooy sàmm mu tabax waaye alxuraan ne am na lu ëpp doole fondation dañ naan fondation dañ naan mooy loola ndax ni ko waxee fondation boo ko xasee romb daa nekk soxla waaye nag na dëgër ba mën a attan li li ci kaw alxuraan fondation mooy boo ko jàngee ci njëlbeen bi ba mokkal ko ba xereñe leneen looy jàngat da nga ko xam waaye nag da ngay continuer di am soxla ci moom fii ngay raase dañ ko soxla booy kuule dañ ko soxla booy peinture dañ ko soxla booy karal dañ ko soxla boo ci dëkkee itam dañ koy continuer ko soxla ndax bis bu yàlla sàkk nañ ko jëriñoo sa kon moom bu fekkoon ne lu ëpp solo fondation am na autour dañ la awkaral noonu la kon ñu xamee ne daal yàkkamte bi nga xamee ne moo ñuy faral di daal léeg-léeg ci bu ñu nekk bu ñu joxee suñu doom yi ci daara yi sama maas bi lu bari dañ ko wax amoon naa ci daara fukki at sama doom du ko fa am yow fukki at yooyu lam la jariñ xooloo ko la nga jàpp ne moom la la wàññi rek nga xam waaye lam la jariñ xamoo bala ngaa xam nag ne yàgg gi ci daara ji wàññiwul dara mooy boo xalaatee yow yow mi nga xamee ne yaa fa jóge woon ba nga amoon fukki at jóge amaat nga yeneen loo xam ne amoo ko dañ jànnee ñu woon daara ci ci anne quatre-vingt yi ba léegi ñi def commerce ba léegi mu gëmutul ne am na nañ alal ba nga koo bàyyi ñeneen wuti métier ba léegi ci bi bàyyee duñ ba léegi kon nag rek waaye fukki at yi nga xamee dama ko wax fukki at rek fukki at bi di am ci ngir ñu moom la ñu bu yaakaar ne perte naa la ci moom yaakaar ne day wut loo xam ne nii moom force da koy am leneen loolu alxuraan ne boo koy wut mën nga caa am dara waaye doo am ne te alxuraan moom boo ko wutee rek am ndax suñu borom moo ne wala xat yasara alxuraan li dikk fahal min muddakirin jëliñu ci kenn dam yàlla moo ko yombal yombal bi mooy ginnaaw bi nga defee say majhuulaat ba jël sa xale bi indi ko ci daara ji ba noppi ba koy jàngaloo ñu koy jàngal sama borom nag mooy moo ci dugg ak moo ci duggal ak jàppandi ba jàppandi boobu te xale bi mën koo xam waaye kenn ku mënta mokkal alxuraan amul ku koy jàng di ko jàngaat rek bu yàggee sama borom def ci moom alxuraan sëriñ bu mag bi doon nañu nekk li waxe borom xam bu mag lu ma waxoon ëpp wala tam jar na muy mat la bi fa aafatu taalibi an am amma tara alxamda li takraarihi fi saxarati sammaa'i qad asfala nee na del sàkku te bul découragé bul découragé mukk ci li ngay sàkk ndax benn sikk kii wut benn sikk la am te mooy dem ba si biir mu ne sonn loolu rek nee na mooy mooy bi yàqal kii mu ne xanaa gisoo euh, teen bi bu nekkee teen bu bees ñu indi goj bi di jukki doo te gis benn marque waaye bu yàggee da gis teen lu mu dëgër dëgër nga gis rëbb yi fi buum bi doon jaar moo tax kuy jàng di jàngaat bu yàggee bu yàggee rek moom maanaam moom mokk kon li ma jiitu daal ci labéré bi muy labéré ñun ñu jaaroon ci daaree bi jógee ñu indi ci suñu xam ne xale yi dañoo war a xam nañ gëm ne ñun perdé wuñ uslub ba ñu doon jàngale ak mën xëj ba rek mën naa wuteeg mën xëj bi xew waaye teewul mën xëj bi njëkk ba baaxoon na ndax ñi yor mën al al mën xëjul xadis kenn formé wu leen ci kenn jàngalu mën xëj bañ woon nañ dem ba gis ñu xam ne am na yoon ko gën a gaaw ñu jàng waaye bu càggee loolu dafa baaxul lu baax daal bi loo fi gën a yàgg rek moo gën nga yàgg ci mbedd te ñàkk a yàgg ci daara ji mën naa waral yàgg ci mbedd mën na koo waral ndax bari na ñoo xam ne nii xale day judd am ñetti at na alxuraan jële ko ci daara ji dugal ko ci leneen balaa amaat at lam jàng dootu ci xamati dara te bu fekkee xale bi mokkale la def na ci daal juróomi at soog koy liggéey moom ba at nekk ci du du fàtte te nekk lor ci doomu mooy mokkal alxuraan fàtte loolu moom mooy ay bi gën a rëy ndax suñu borom ci waxin da ci xolu nit ki ëllëg waaw ni ma la joxe woon sama aaya nga fàtte ko wa kadhalika al-yawma tunsa te loolu da lay at nit ki rek suñu suñu borom du danaan ni ma la xamale woon sama téere nga war war caa farlu war caa góorgóorlu ba euh, di sàggan ba fàtte ko yàlla nee na noonu laa lay fàtte du la fàtte waaye da lay fàtte fàtte kon ñu xam ne kon loolu nag li koy tax am mooy. dëgg la jàngalekat bu ndaw laa waaye ab jàngalekat naa xam naa li ci xew maanaam xale bi lu mu gën a yàggee ci daara ji ginnaaw bi ma nee alxuraan rek alxuraan bi gën a dëggal ci diggante bind ko toppaat ko ak xereñe ko ak maanaam xam ya ci aju ci xam-xam bu xasee sax rek dootul dootul dootul dootul demati ko waaye alxuraan bi nga xamee ne mooy mokkal bu njëkk bi suñu ma xam ne lay wax mokkal bu njëkk du mokkal mokkal bu njëkk muy mën a tari loolu tari la tudd waaye du mokkal mokkalum ñaareel ak miin la moo mokkal te mokkal boo googu nag mooy nga bind ko ba téere ba nga doon jàngee ñu la waxee baat sàngam nga ne nii la ko bindee euh, maanaam nii la nii la sànnee nangam ba nii la ko bindee loolu moo di mokkal fii dimoo dimoo ci saa yoo gagee mën a gàggal sa bopp rek sa mokkal des loolu nag patiente lay laaj ñu xam ne école bi di jàngale adduna képp boo jàngee ci moom mel na at ba adduna jeex dangay def ay imtixaanam tajribi lañ koy li ko tuddee essayé bu essayé yi baaxul ñu ne la yokkal sa baaxul de ba at jeexee bu ñu defee imtixaanaat bi mujj yi bu bu jàllul ñu ne laa ah yow kat at mi li nga jàngoon dañ koy jàngaat te yow doo gis mukk ku jàmbat ne ji xale bi yàgg na ci école kenn ko jàmbat waaye yàgg na ci daara joom da nga dégg ñu di kon nag ñoo xam ne loolu liggéeyu seytaane la ñu ko loolu nag ñun ñi ma di ko wax mooy ñun la gën a dal ndax ñun ñoo ëpp luñ gën a jiima gëstu ji meneen njàng ma ñun ñun ñoo ko gën a bëgg daal ñun ñu ko defutoon lu baax la waaye nag nañ xam ne lu ñu lee moom nañ ko war a xereñe ba noppi soog a seet point yi topp ci biir dinaa ba loolu jàll itam ñu xam ne daara léegi am na ak soppiku bu ci am soppiku boobu bu ñu ko xamee daa tax bu ñu yëgee suñu bopp ci ñu bàyyi xel ndax ku ne ci ba nga nekkee ci daara ji di jàng xëy na mën naa am sax ñun ñañu mag ñoom ci gën a jaar lu bari ci coono yi war ci sëriñ bi ñoom dong yi ñoo ko yenaloon ñoo ko gàddu doon sëriñ benn daanañ bay wala ñu taxani dem di wecc ko ci sëriñ bi di mën a am lu ñu lu ñu dundalee wala bu añ jotee xelal xel ñu gàddu seen pot de biir waaye léegi nag jamono ji ginnaaw sopp ko na sopp ko boo xam ne nii maanaam daanaka ñu baree bari ci daara yi yalwaane sax mi nga am moom ndax mënta ñàkk waaye ñu baree bari rek daanaka seen doom di yalwaane gënalu xamal ne képp ku bëgg sa doom na nga war a def kon ba ko am na nooy bàyyee xel barab bi boo ko bàyyee xel barab bi borom barab bi ci xam ne barab bi àttal na boppam bu ko ci daara waaye nag bu fekkee moom jàngale dong la man te boo ko joxee xale bi mu ne laaj dafa xam nga ne ko mën ta ñàkk bu téye ko bu ko def mooy il faut xale bi génn def yeneen yeneen mbir ngir mën a am lu lu lu lu lu kon il faut ñu góorgóorlu ci suñu maxfuus bu waxee ne dafa samp daara rek te laaj kenn dara par weer ñun ñoo war a xamal suñu bopp ni parce que bañ ko yaree woon jàngale ko ci la waaye jamono yi xaw naa wuute tuuti xaw naa war a tuuti yi tey la gën a gis tey la gën a jafe tey tey la gën laaj ay taxawaay te moom itam mënu koo wax fenn mënu koo wuti fenn kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi indi suñu doon tey ñu bàyyi wala xel loola xam ne sax moom ni ñu def moom li ko war def na ko waaye ñun tam nañ def li ñu war li ñu war moom bu ñu xale bi ñëwee ñu koy nemmi ko suba ngoon yemale ko xale ba xëyee danañ ko toppatoo lu nekkee bu añee ba noppi dañ ko lu sedd lu mën a jëfandikoo bu tilimee ñu toppatoo ko saabu lu xew ci moom ñu def ko lu bàyyi wala xel daara ji moom xam ne bu ko jëmee rek mu mat te it bu ëllëgee ñu dajeeg suñu borom woon ci toppatoo xale yi suñu borom du ko laaj maaxuus mais ñun la ko laaj ndax ñun lañ suñu njaboot ñu war a toppatoo kon loolu tamit lu bàyyee ko xel la bàyyi wàlla xel tam ne sens la nga am sëriñ daara boo xam ne nii jaar nga ci moom ba jóge fa yëg yi woom la defal ngay dellu si waat ci moom loolu sens la amaana ñu jaar ci ay sëriñ daara yoo xam ne nii sa seytaane muur na seeni xol ba la leen sëriñ bi defal ci yow ñoom gisuñ ñoom lay niru safaan rek lañ gis ba tax ñu koy teggi ak di ko daw ak di ko bay bu la yàlla defee tawfeex nag nga am say daara bu waaye foo toll sa xel dem ci moom na sa xel demee ci moom nag xam ci li muy yendu am ñu boo ko defee barab ba dana gën a jëm kanam te la ngay def ci daara ja mu mu néew ak mu bari bis bu bis bu ko saa borom dee fay bu egsee ci ko ko defoon day fay kooku bu mën sëkk te lu wàññi dara ci fayoon si ñaxu bi kon loolu ñu bàyyee ko xel bu baax a baax a baax bi ngi toppaat mooy ñi ñëw ci daara yi di ko xoolal daara yi di xool loolu mooy boo ñëwee bul yam rek ci moom waaye na jàll ci biir daara bi xam ndongo yi nan nañ nekk di mu na diggante lañ fa nekk woon ak ñoom lañ fi nekk lépp loo gis na fi te lu fi waroon a ñëwaat la nga mën cee waxtaan ak moom ñu loolu mën a ñëwaat ci lépp loo gis ne nag waru fi woon a waru fee nekk te ba léegi ñu fi nekk wax ceeg moom loola mën a teg waaye du teggan da nga ñëw rek jël sa addiyee jox sëñ bi dem déedéet loolu yàq bi dem waaye dong yaa ngi fi nekkaloon yow xam ne dem nañ beneen jiir moo fi nekk beneen génération bu dul ñëw fi daara ji ñoom duñ la xam te buñ la xamul la ñu nekk doo ko xam te mu boobaa man ngaa dem ba jàpp ni bi fa ko bàyyi woon la nekk fekk weesu na ko bu yàgg wala fekk àggatu ci te loolu yow boo ko xamul doo ko mën a wax sëñ bi te boo ko waxul sëñ bi am na yoo xam ne ne nii moroom dong rek moo ko xam ci ci moroom loolu tam nu ñu nu bàyyi ko xel bu baax a baax bi ci mujj itam wala xam ne mujj ci waaye bi may mujjee mooy nag ñu góor-góorlu bu baax a baax a baax a baax ci téere suñu borom ci gën ko ak xam ko sàmm ko ak wattu ko ak aar gëm gi mooy kutub yi ci jaaroon bari na waaye téere yi yëpp daanaka yu ci bari naax saa yi alxuraan képp fi des di téere boo ko jàngee mën ngaa waat ne na ko ñëw ci wàllu sens doon jàngee na wàcce woon ci moom mën ko jàngee loolu nag boo ko gëmee ba xamee ko noonu daf lay jaral li ma doon wax lépp mën la ko jaral waaye bu fekkee na yow defoo ay setantal defoo ay gëstu ci tolluwaayu euh, maanaam. téere bi ñun maanaam fi mu jaar maraaxil yi jaar bi egg si ci yow boo ko deful xanaa jàpp ko ni rek téere bu ñu jàng nii loo ko gëm gëm gëm ci kaw gën bi lu àgg dëgg-dëgg sa xol pour mu àgg sa xol da ngay xool maraaxil yi mu jaar nga xam ne leneen lu ca jaaroon lu alxuraan kenn waxam boo ko xamee loolu daa tax nga mën a gën xam ni ngay gëmee téere bi fonk gi mooy comme ni ma wax kóllërante daara yi ak ñoom daara yi ñu fi ñëw suba ngoon di xam li fi xew ndax daara du barab bu ñuy wattandiku bara bu ñuy ñooxu la di ko jege ndax dañ ci defaroo te nit ki fu mu waru fa sàggal benn yoon loolu tam ñu bàyyi ko xel baax a baax ba nga toppaat itam ñu gën a góor góorgóorlu nag ci bañ a ci toppatoo daara ji ni ci dund waaye di toppatoo daara ji ci point bu am solo muy ay jàngalekat gis nga suñ daara boo gis mën ngaa ñëw leen fekk mu yor fukki fukki jàngalekat ak ñaar waaye ñu bind kamil mu leen fi bàyyi bu ñu bindee kamil rek daanaka dootuñ fi nekkati ñeneen ay ñëwaat jamono li mu indi ci jamono jii li xew ci jamono ji mooy. utul jàngalekat seen la war ci moom nga di ko def loolu nag borom daara bu bëggee boole yor daara bi ak bu utul jàngalekat bi del fay dana diis moom lool donte nag dana ko def waaye dana diis ci moom lool loolu ba xam ne jam ay yaay yu mel nii nga xam ne ay firnde lañ ñu fi ba jóge fi leen dañoo war di gëstu jamono boo nee seen bi ba mat fexe ba ñaari jàngalekat moom nga jàngee yoo xam ne ñoom ñoo yore la war la war ci jàngalekat mën naa ne a ci ne ah suñu mbiru maa ngi fas nañ ko yéene itam yoo xam ne moom mooy wut ña ko neex waxaale ak ñoom ba am maslaa ba nañu toll mu wax leen ko ñun fas ko yéene féetewoo loolu loolu lu am a ñàkk moom boo ko bëggee na ko bëggee ndax jamono bi dafa bari yu xew ci njàngale mi loo xam ne xewu ci woon bu dikk tey bi mënut a ñàkk gën nañoo defaraat léegi qualité njàngale bi léegi dañuy jàng te jëlul xuraan dañuy jàng ulumul euh, quran yooyu nag xale bi yemoon ci jàng ci daara yi madaris ak taqlid yi rek mënu koo mën il faut ku ko jàngi feneen wala ko def ay formation day daal loolu nag boo gisee ko ko mën day laaj ay taxawaay yoo xam ne nii taxawaay yu wóor la yooyu nag bu suñu daara yi bëggee gàddu mën naa gis te ñi jaar ba xam ne am na luñ fi te Aliou si biir seen jamono ñoo fi nekk ñoom ñoo war a góorgóorlu nag ci féete féete noonu góorgóorlu ci bu baax a baax ba mën a am ñaari jàngalekat ñett yoo xam ne ko jàppale ñoo ko jàppale sëriñ loolu la loo xam ne ko defee yëf yi mën naa gën a jëm mën naa gën jëm kanam bi ma ciy mujj nag mooy soññ sama bopp bu baax te soññ sama mbokki donga yi fi nekk ñu xam ne jàng boo ci toogee boo ci tollee jàng rek la man mënul a nekk dong bi jàng nga xam ne jàng rek la man mënul a nekk loolu nag li jiitu ci donga bi mu war koo xam mooy day bàyyi xel la la tax mu jógee kër ñaari waajuram ñëw ci daara jógewu ko ngir soppi barabu dëkkuwaay rek déedéet dafaa jógee ngir am lu amul ci kër ay waajuram da koy wussi ci barab loolu nag bu ko xamee dana seet ka koy ko a li jiitu ci donga bi ci li ci moom mooy mu xam ne wenn waajur la am mooy sëriñ daara bi koy jàngal mooy ndayam mooy bàyyam mooy kilifaam mooy léppam la mu bëgg ci la war a wéy la mu bañ la war a mooy moytu wërta def leneen mu xam itam ne buñ xasee wax mbaarum jàngukaay baa ngi nii këru daara jaa ngi nii kër jigéen ñi moom lu mu la jege jege nga xam ne bokkul ci daara lu mu la jege jege rek loolu a gëm jigéen ñi moom bokkul ci daara ndax bu barab bi yaatu woon nañ ko bëgg boobaa da nga dawal ñaari kese ñetti soxla ak ci kër gi waaye ginnaaw barab bi nii la bindoon nga xam ne fii mooy daara ji fële mooy kër gi fële bokkul ci daara kenn mën nga xam lu ma xew ba nga mu mën la li nekk ci daara ñi di xam la nga kër gi ndax jigéen yàlla daf ko bindee mu doon ku ñeewante ci kaw te xamul na muy ñeewante am yërmande te xamul na muy yërmande bu gisee sax lu nekk ci xale bi ci ab tilim tilim wala taxatat wala ko koy garaawal ba xale bi jooy ko te ko woon ci biir xale bi loolu nag bu demul ci kër kon ñu xam ne daara bi daara la kër jigéen ñi kër la bañ faa dem mooy waxtu jàng nga xam ne waxtu jàng waxtu jàng képp li may wax suñu wax suñu nga xam ne. seen daara yee ñu jaaroon daara yu mag a ñu ñu ko daa génne bu si néew di wuti eh, xewal muy añ wala reer dañ leen di jox heure boo xam bu heure ba jotee nañu wut bu ko amee bu ko amul nañu wàññi ko wàññi ñu daal waaye ñu baree bari dem wuti xewal ci biti daara ji ñu ñu demee duñu xam dañuy dem rek nekk ci àll bi jàpp ne loolu fekk loolu dafa gaar rek waaye waaye waaye bokku ci lekk ak naan yàlla ko boole doomu aadama mënta ñàkk waaye ku ko jiima muñ rek yàlla yombalal la ko mën ko muñ am na nitu yàlla ku mag muy Cheikh Abdul Xaadir al Jilaani moom eh, bi nekkee ndaw nekk ci daara bi di jàng alxuraan bu waxtu jëfee ku masaa jot day dem di ko wuti faneen di ko wuti di fa yàgg lool moom nag tawfeex la ndax suñu borom moo yebal lu waxal moom waaye benn bis la dem rek ñëw ci ki ko war a jox añ mu toog di xaar añ bi noppi yëf yàgg lool mu dégg kàddu bu xumb gu waxal moom ne ko innama jaaltu shahwata lid duafaa min ibaadi amal aqwiyaa falaa xaajata lahum ila taam nee na moom si Abdou Khadre Dieng nee na keroog la géej xaaru ñoom ba dem jënd mos koo xaar fenn dafa dégg kàddu gu nekk bànneex moom ak lekk lu naan nii ñu feebul ko moom ñu waaye ñu am kàttan gi te kilifa yi ñooñu amuñu soxla ci ñoom si Abdou Khadre Cheikh Abdou Khadre Dieng nee na la mu mujjee toog di xaaru ñoom ba dem jënd te loolu nekkoon ci moom moo nekk ci dong yi donc ñëpp mbedd suñu borom la nit ki boo ko limité lay mbiram ba mu xam ne lii mooy li mu war def rek mu nekk ci ci par par waxtu lu ñëw da da cee mën a doylu dëgërloo ko yàlla dimbali ko ba waxtu jëfandiko jotaat mu mën a àggale jëfandikoo lii daal moom laa amoon ci librairie yi may jëmee ci sama mbokk doom yi fi nekk di tam laa amoon ci librairie yi may jëmee ci sama mbokk eh, yi fi jaaroon ba jóge fi la ci jiitu tam mooy sant ñu ma doon jëmale ci suñu moom wax ko nii di ko sant bu baax di ko gërëm ci ittewoo xam danaa danaa leen wax ci moom dara jamono bi mu nekkee ci fii ci fii ci ngayeen di jàngale foofu alxuraan waxtu wu gàtt yi mu doon am ci la daal rocc ko dem di sàkk ñu xam-xam waxtu wu gàtt yi mu am daa rocc sàkk ñu xam-xam xam bu jàngalee ba six heures dëgg dafa heure boobu seen dal heure boobu lay wàccee bitigam gàddu téere bu ñëw di sàkk si xam-xam man nag mën na ko topp ba gee te bu ñëwee dugg ci du duggaat kër bu ñëwee rek ci directement ci mbaar bu mu jàngalee keroog bi mu jugee foofu ci koñ bi tam ñëw fii dafa am lu rëy lu ma jàngee ci moom li nga xam na ko moom dafa am ay dongaam bi daa jàngee ci moom ba mu jugee foofa ñooñu mënuñoo agsi fii ñu jël ñooñu andi ma leen ñu àggale ci moom kenn ku ma dë dëppal benn xisib amu ci kenn ku ne ci ñoom ba nga ñëwee la nga weesu lépp da nga ko mokkal mën naa moom suñu xabaar ñëw moom mi fépp de keroog bi Mouhamadou Niang ñëwee ci moom moom mi def maa xam naa ne léegi a mokkal waaye juróomi xisib la jël ci man juróomi xisib ba loolu nag mooy ndamu suñ daara bu ne booy jàngale bu yàkkamti looy jàngale nit ki na baax ndax bis mën naa ñëw dong bu jige say loxo dem bu fekkee liggéey bu baaxoon nag saw way day sax bu faw bu baaxul tam dañ naan sëñ daara bi mën ta jàngale lii nag loolu donu ko moom ndax man lii moom seeralaaj dong yu bari yoo xam ne ci moom lañ jóge woon àggale si ci man kenn koo xamee ne nii ba nga ñëwee sonnaan naa ci yow dara amul na nga weesoon lépp daa moom ko ngay noonu liggéey bi rafet nag sell yàlla na ko yàlla sànn noonu waaye xar daawaana alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf jërëjëf bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ak a ak a ndokkeel mbooleem jullit gi ci yi tedd yi nga xam ni ci lañu di si baalu ñëpp xaq waaye di baal ñëpp di ñaan suñu boroom boole ñu jéggal te nongu ñu suñuy jaamu yàlla te def ñu yàgg kaa teewe at yu bëree bëri waaye di ñaanal suñu boroom gën ko fee yàggal te yokk ko wér te gën kaa sàmm ba yéene ji nga xam ne moom la am ci liggéeyal borom bi subhanahu wa ci alquran suñ borom defal ko si lu kawe njortam di ñaanal it ak nuyu ak ziyaar kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jataa bi di si wax tudd ku mel ni Serigne Cheikh Gueye ak Serigne Abdoulahi Jaxate ak euh, Serigne Abo ak Serigne Cheikh ak euh, mboolem daal ne damay bañ a lim di bañ matal waaye di nuyu kilifa yépp di leen ziyaara waaye di leen sant bu baax a baax ci teewaay gi nga xam ne teew nañ si di ñaan suñu boroom defal leen jéego yëpp yoo xam ne def nañ ko ñëw agsi ci béréb bii suñu borom defal leen ko yiw te def mu yàgg ka teew ay at yu baree bari ndax teew gi ñu teew rek suñu sag la nii kon nag ay nit yi sëriñ Mouhamadou Mahfouz lan te it bis bi xam na lool kon ku dagg ay yitteem ñëw ci bis bi ak cant la boo xam ne ñun dañ leen kaa ameel kon nag di leen ñaanal suñ borom guddal fan yi te yokk wér gi te ngeen yàgg teewee ci bis bii nii kon nag dan naa jox kàddu ci turub dongo yi ma nekk koo xam ne tuuti naa si lool nag ci wax ci seen tur waaye comme que ndigal la ñu jëfe rek xam naa xëy na kàddu bi lépp loo xam ni am na ay ay njuumte ñu xam ni ku doon wax moo doon jéem rek waaye ku tële loolu la ci wax sax waaye nag di jéem uh, dimbali ko suñu boroom rek ci lépp loo xam ni wax nañ ko fi rek suñu borom dimbale nii ba lépp loo xam ni mbooloo mi sàkk nañ ko ci ñun daal ñu wax si suñu kemtulaay kàttan kàddu yi mooy kàddu yi cant rek yoo xam ni waa daara ji amee nañ ko seen sëriñ daara ñu sëriñ Mouhamadou Mahfouz cant yoo xam nag am na fu mu tàmbalee waaye amatul yamukaay ndax dafa nekk loo xam ni li mu def ci ñun amul keneen ku ko mën a defar def lu ëpp loo xam ne def na ko moo ci ñun muy sëñ Mouhamadou Mahfouz muy alquranul karim nga xam ni téere la boo xam ni jullit yëpp daf dafa nekk warteef ci ñu jàng ko waaye taxawee ko kon ne ci si ñenn amee taxawaay ba fetewoo ko kon day mel ne jullit yëpp ameel nañ ko ak cant ndax dafa nekk fardul kifaaya nga xam ni mënta ñàkk ñu ko taxawee kon na ña taxawee ñoom ñoo fa nekkal ñeneen ña kon nag ñeneen ñi nga xam ni suñu borom daf leen xiir ñu nekk ci leneen it ñuy bañ a fàtte waa daara ndax kat suñu borom moo bind noonu àdduna ñëpp mënuñoo nekk ci lenn ñenn ñi dañuy farefee ñi farefale waaye kenn ku nekk fa nga nekkit ca jaaroon ci daara ngay fàttaliku daara joojee di koy fàttaliku ci lépp loo xam ni xam nga ni kat bërëb ba aajo woon ko ndax kat lépp loo xam ni def nga ko ci nekkut luy naax saay ni ko borom bi subhaanahu wa taala di waxee rek inna alladina yatluuna kitaaballah wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaratan lan tabuur ci see wax ñetti mir yoo xam ni ba sa jiitu mooy ñuy jàng téereb yàlla bi ca man jàng téereb yàlla ba leen nga koy man nag day fekk nga jaar ci daara kon boobu benn la mu teg sa ñi nga xam dañuy taxawal julli te it julli ba nga kaa man day fekk nga xam ñu ko suñu borom di waxee da ngeen may jaamu ba wala da may xam njëkk ngeen may jàmm su ngeen ma xamul nekk ngeen may jaamoo te jaamu yàlla boobu liy tax mu rafet di sell danga koy jàng ñu xamal la ko ba mu si tegaat mooy ñi nga xam ne dañuy jël seen wërsëg di ko dépassé ci lu nëbbu nga xam ni def giñ koy def ñoom ak yàlla kese ñoo koy xam wala sax ci loo xam dañ koy feeñal waaye bañ koy feeñal it xëy na jublu nañ si ngir ñeneen roy leen ci lu baax loolu yi waaye defuñu ko ngir ngis tal dañ koy def ngir jëm bi yàlla mu ni jëf joojoo ñuy def de du nekk loo xam ni day naax saay wala suñ doon commerce yi mën nañu lañuy ñuy commerce de dinañ si am bénéfice bu rëy rëy mu ndax kat alquran moom képp ku ci def sa dërëm lu mu néew néew dërëm boobee sànkuwut ndax def nga ko fi gën kon nag ñuy soññaat suñu bokk suñu bopp ak suñu mbokk daara yépp ñi xam ni jaar nañ fi ak ñi fi nekk jamono jii ñu gën a góorgóorluwaat gën a taxawuwaat daara ji ci lépp loo xam ni ndax kat dëgg la moom suñu ko suñu si jàppee dina dem suñu si jàppate dina dem ndax ni ko suñu Abdullahi waxee léegi rek bari na loo xam ne nekk na ci daara ji amaana day ñëw rek gis ko waaye euh, nekkul loo xam ñoo koy taxawal kon na loolu mooy jàpp si mu dem bañ see jàpp mu dem kon na jàpp si am euh, sa nga bokk ci sag bi loolu dafa nekk lu gën a rafet kon nag ñuy soññaat rek suñuy bopp ndax kat alquran moom léppam dafa nekk yiw jàng gi yiw la waaye ndax eh, anam boo ci taxawee rek day mel ni ca ca liggéey ba nga bokk benn ngay jàngale walla ngay jàng wala ngay ja defoo ci yooyu yëpp waaye yaa ngi dimbale ñay jàng eh, kon nag bunt la boo xam ne daal buntub yiw la buntub njariñ la boo xam ni njariñ li am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem tàmbalee na ci àdduna si nga xam ne fi la nekk yiw woo xam ni eh, wenn xaraf woo si jàng rek yiw wu baree bari la ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa man xara man xara xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana wala xasanatu bi ashri amsaaliha laa aqulu alif alif laamun xarfun walakin alifun xarfun wal laamun xarfun bépp xaraf woo xam ne jàng nga ko ci téere borom bi rek suñu borom dina si defal yiw mun yiw wooye nag suñu borom mën na kaa benn bu si nekk defal la fukk walla la ka soob te xaraf wooyu jubliwu si alif laam mim waaye alif rek nga wax ko suñu borom defal la ay yiw yu bëree bëri waaye su ëllëgee su euh, yawmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni ñi nga xam ne ñoo jàngoon alquran dañ leen dañ leen di wax naan leen iqra war manzilatu nga yéeg jànge di tari di yéeg ay darajaat la foog dafa day gën a rek kon nag su la yàlla dimbalee nga man téere bépp kon nag loolu ak cant la goo xam ne war nga kaa sant yàlla waaye war nga kaa delluwaat sant ko sa sëriñ daara mi nga xam ne moo def ci yow loolu yi waaye ba ba tey ñi nga xam ni bërëb biñ koy jànge sax dafa nekk kaaraange ci bërëb boobee rawatina ci dëkk boobee wa qawmun fi baytin min buyutillahi yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat alayhim as-sakiina wa xashiyatuhum rahma wa xafathum almalaikatu fama fa zakkarahum allahu fi man indahu mu ni benn néeg ci néegi yàlla yi muy bërëb ci bërëb yàlla yi boo xam ne ñu ngi fay jàng alquran di ko fa jàngalante lu dul bërëb boobee suñu borom dafay wàcc ak dal waaye dafay wàcc yërmaane te it bu malaayika di teew la kon nag waa daara ñu mën mënuñu leen a fay bépp bërëb bu ñu nekk muy dëkk wala quartier bu mu nekk waa carte jaba mën ñu leen a fay dëkk bu ñu nekkit waa dëkk ba mën ñu leen fay ndax bari na amaana loo xam mucc na ci fekk ni yàlla la ak jëmmi daara ja nekk foofee kon nag dama tey tàmbalee ci ñun ci suñu bopp ñu jaaroon ci waa daara ji ñu gën a taxaw waa daara ji waaye ñu nekkee fii ci bërëb bi euh, xam naa euh, wax ji duñu guddal dañ doon joxe suñu yéene ak kàddu yoo xam ne dañ ñoo yónni woon rek ngir mu wax ko ci kuro waa daara ji xëy na mën naa nekk lu dëng lool loo xam ne juba dina waaye di ko jégaluwaat bu baax a baax di daane foofu suñu kàddu di santaat bu baax a baax waaye di ñaani suñu boroom mu defal ñu lépp loo xam ne lépp dërëm bu ñu jël indi ko fii rek suñu borom barkeel képp lépp loo xam ne kenn ku ne joxe ak dërëm lu mu néew ne suñu borom barkeel ko def si ak yokkute bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di siyaar di ñaan suñu borom tabaraka wa mu bàyyi ñu ko Cheikh Mamadul Muntaxa ba lim yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp nu ànd ko moom ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne dan abadan di kilifa yi muy fekk nga xam ne at mu ne bu ma ñëwee dinaa leen fi fekk ñu ñaan mu gën a yàgg lool ci barkeb Serigne Touba nuyoo bi nag maa ngi koy tàmbalee ci. Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Bassirou Diagne Serigne Touba nga xam ne bii bi sëñ Modou Mahfouss ñëwee fa la ma fekk fu toog bëggoon naa ànd ak man sax waaye dafa am tuuti lu ko teq loolu moo teemu ñëw waaye nag mu wax ma ne fépp foo xam ne teew nga fa rek fu ma teewut ba fa teewee rek ma ne ne teew naa ma rek sëñ Cheikh Mbodj nii di bàyyi faalu lansaar ñu ndikk nag di siyaare si Axmadul foos mi nga xam ne sunu ndam la sunu sag la ndax ci ndigal ak jaamu Sëriñ Tuubaa moom la ñëwee fii ba sëriñ bi sax joxoon na ko ay leeram yoo xam ne yoroon na leen fii di leen jàngaloo si daara jii man mi wax ak yéen sama ñetti doom jaare ni fii ci daara jii waaye sëriñ Modou Mahfouz kenn mënu koo fay ndax alxuraan moom képp ku ko xamal sa doom benn araf mënatoo koo fay kon sëriñ Modou Mahfouz sëriñ bi nee mu mi lay sant mu ngi lay gërëm mu nga lay ñaanal ndax te jamono jaamu sëriñ Tuubaa ba léegi sa taxawaay ak sa dëggal ak sa yar ak say teggiin sa bëgg alxuraan ak bëgg Sëñ Tuubaa feeñ na kon nee moom mu ngi ñaan ci barkeb jaamu Sëriñ Tuubaa daara ji nga xam ne moom nga dajale ay xale fas leen a xamal ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom defal la li nga bëgg te mu gën ci yow góor ñi ak jigéen ñëpp bëgg nañ ci yow sant nañ la bu baax gërëm nañ la ndax alxuraan kat képp ko la ko xamal mën na too koo fay ndax téere la boo xam ne képp ku nekk ci sa dënn booy boo nga xam ne dajale nga àdduna dajale alaaxira kon sant nañ la ci bu baax a baax a baax a baax di la ci gërëm di la ci ñaanal donga yi ñu fi dajale di leen xamal alxuraanul karim di leen yar di leen jàngal xam-xam loolu kenn mun la cee fay xanaa di la ñaanal rek suñu borom fay la ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimal Fadl nun nag noo ngi ci sa kanam nekk ci sa ginnaaw lépp loo sumb te muy li gën ci ci nun danañ ci yow ba fa mu kon sëriñ Mouhamadul Mahfouz góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp sant nañ la bu baax si taxawaay bii ndax wax dëgg yàlla day bu ñëpp defoon na yow kon Cheikh Mouhamadoul Mountakha lii muy digle wala mu di ko tere yow loolee moom yàgg ci biir kon ñi ngi ñaan nii nu fi dajee ren yal nañ ko fi dajawaat déwén ci barkib Sëriñ Tuubaa Xaadimu sol sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax a baax léegi laa koy wax ne fay ci penc ma mën a leen ngay sëñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne moo nu doon jàngal nga xam ne kuy kuy tari moo lay déglu nga xam ne benn baat képp soo ko waxee dellu gannaaw mu ne la mëkkaloo waaw moom noonu la defoon 1960. ci boppam man booba laa wàcc alxuraan mu déglu ma may bind par robo di dem bay bind nisif di dem bay bind isib waaye soo jàngee juróom-ñetti fan ba jàng lu ma ñaari isib bala ngaa jàll danga ko bind ci àlluwa eh, tari ko ba mu mokk nga door a jàll noonu la doon jànge waaye moom benn baat boo ko waxee dellu ca mu ne la bokkuloo waaw da ngay continuer rek dem amoon na doomi sëñ Modou Xari Ñang ñu ma bokkaloon daara su ma ko waxee sax ñëpp daañu ko xam muy sëriñ Omar Bousso yoroon na bara bu sëriñ Touba bi kooku maa moom ñoo bokk benn bis bu ñu wàccee alxuraan 1960 waaye am na robo joo xam ne biñ ca eggee moom daf ko xawoon a fëtt muy rabo yi wala ko mis suma tanaka afaaji ko moo jóori waaw ñu jafee tari la woon waaw waaye moom wax dëgg yàlla eh, gane gi moom képp ku ci jaar te nangoo sonn nangoo jàng boo fa jógee ah da sant yàlla bu baax waaw ci daanee sëñ Mbàkke bu soo jooji nag man foofu laa jaar ba sëriñ bi ñaanal ma muy 1965 juróom benn fan ci weeru kori di bisub talaata te la ma sëriñ bi ñaanale sant ma gërëm ma kon kookee mënatuma koo fay kon sëriñ Modou Mahfouz alxuraan jii nga sax muy métier moo xam ne dëgg sax amul xaalis waaye métier la moo xam ne mii moom ñu yore ay milliards bëggoon nañoo mel ne yow ndax milliards yooyu lu mu yàgg-yàgg danga fi jóge bàyyi ko fi mbaa ba jóge fi bàyyi la ko waaye alxuraan bi nga xam ne mu ngi nekk si dënn ko xam di ko xamle kooku moom kenn mënu laa fay kon noo ngi lay sant di gërëm di la ci barke bu alxuraan jii nga xam ne moom nga jàng di ko jàngale suñu borom defal la ci mbóot mbóotum alxuraan ci barkeb Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax alxuraan moom dafa jafe ndax ni mu wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa rek boo ko seetee xam ne ab dongo moom luñ ko mën a wan ci daara jar na ko ndax man jaxalal xuraan yi in on sala min law yi ci fii dolo inna sala jooju nga xam ne moom la suñ suñ wax mu jaar si naa jibi wàcc lu jafe la léegi nag jamono ji dafa dem ba nga xam ne fii toll daal di kii wutum alal tax na kenn faaleetul alxuraan ndax ko sa loolu wàcc benn yoon rek wala ñaar nga daal di say bëgg a yemal waaye loolu doyut ndax jàng ba bind ay kaamil jàng xam-xam jàng lépp loolu moo baax kon sant nañ la bu baax di la gërëm di ñaanal di sant kilifa yi bu fekk yëpp tàmbalee ko ci sëriñ Gueye ñi nga xam ne at mu fekk ko fi ak kilifa yi fi yëpp noo ngi ñaan ci barke sóori dan abadan yàlla na ba jàppale yàlla na sa borom ba sàmm yàlla na sa borom ba aar ak sa borom ba dimbale ak mboolem ñi fi teew ak taalib yi nga jàngal yëpp ci barke sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul barkeet Cheikh Ibrahima Sarr Jasaar salaam ji bii ngeen liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci daara jàngal doomi jullit yi ak doomi téere bi téere bi yàlla bi yàlla may na ndam am nga ci ndam sax waaye yàlla yokku ndam yi su may kàddu duma du bari am nuyoo lay def ndax suñu ebo moom li wax dégg na sax amul leen luñ ci mën a dooliwaat ndax koñ bu nekk rek nuñ fañ duggoon mu dugg fa dafaa dugg leeral ko tas tas ko tasaare ko pour ñëpp mën koo jëriñ kon suñu ebo tamit ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu yi nga fi yëkkati am na njëriñ lool képp koo xam ne si taxalim mooy sa métier rek ak taxalum te yaakaar naa jëlee nga fi ay ay leçon yoo xam ne si boo boo génnee rek dañ ci mën a jëm ci suñu te loolu lañ moom la ñuy sàkk woon ci ndaje mi te nañ ko bëggee woon defe nga ko kon daal suñu ma xoos maa ngi lay seeral daal ne liggéey bii ngi liggéey suñ Tuubaa ci alxuraan naw nañ la ci lool te ñaan nañ la ci lool ndax yaakaar naa am jot di génne ci sa daara ñoo xam ne si dañoo bind ay kaamil liñ yaakaar naa am day gën a ful waaye du wàññee loolu nag nam la ci bokk Sëñ Tuubaa gannaaw Sëñ Tuubaa moom da ko daan jàngal di ko di ko mokk di ñu koy mokkal ak di ko bind kon boo ci nekkee di ko dundal di ko defee ci bi nga xam ne comme liggéey sëñ bi yaa ngi koy dundal di ko jëmmal kon nag gàttal daal bañ a xaabaabal man damay dama doon nuyoo ak sant rek ak euh, feeñal sama mbëgte mu nekk sama xol waaye kàddu sooññeek kàddu yu ndigal ak kàddu yu joxe xam-xamam si nga boo def na maa ngi leen di sant di leen gërëm di gën a soññ nag suñu abdoulaye yéen waa daayira bi lii ngeen def ñu ne ko gën a jëme kanam ndax lu am solo la am mu jot ngeen sàkk benn bi ñëw si si sëñ bi leen jàng alxuraan bu def ci seen dënn téerab suñu borom bi sàkk ci wërsëg bi ngeen di fàggu ñu xalaalan tey ba ni ñëw di ko siyaaree di ko ndokkalee loolee lu rëy la yàlla yàgg lool yàlla defee nañ ci ndam te ngeen ci dajee ci ngërëmu suñ Tuubaa bi tax ngeen def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa kon ñu siyaare ñu sant Mbàkke ak ñu sant Jaxate ak yeneen sant yi nga xamante ni yëpp sëriñ bi moo leen defal di leen siyaare bu baax di tam ci toog gi nga xamante ne moom tur nañ doog a toog ñu ci kaw ndax wóor jataay bi nag xëy na moo ko laaj ginnaaw loolu sëñ Mourou maa ngi lay yëgal ne tey ñëw naa fi ñaari ñëw yi ñëw naa fi ngir xool ko waaye ñëw naa fi itam ci digal lu sëriñ yëngu ndax waxtu bi nga xamante ne boobu di julli tisbaar ba tisbaar ba ci tuuti la ma woo téléphone dama boo demee ci sëñ Mourou Mahfouz na nga ko wax ne ko amoon naa yéene lool ci teew fi na ma faraan teewee waaye ren yàlla moo dogal ma xaw am gàtt ndax démb dafa am lenn ci donge yi ñu fay yendu si doon ko siyaare ba tax na li war nañ def ci ay siyaare lépp munu koon démb mu xëy na doo def siyaare yooyu. ànd ak bi julli gi jub mu mel ne daa xaw na limbal ba docteur yi sax dañ koy waxaan ne ko mu xaw a tal lu tuuti waaye xam ngeen ni ko yàlla bind moom day mel ni loolu mënu ko buñ defee si yàlla yooyu nag ba ñëw loolu jàpp ko ba moo tax mu xam ne mënut a àgg mu ne na kàddu yooyu naa ko ko jot gi kon nga xam ne loolu mooy ngànt waaye day mel ne at bu ne moom ñun ñoo ko daa ànd kon ñu nangul ko ngànt lool ginnaaw loolu nag day mel ne kàddu yi ma ko waxee bu gudd lool. xanaa di leen seereel sëñ Mourou Mahfoud ni leen pas-pas bi nga xamante ne moom laa ànd ak sunu waajur di bay sëriñ lépp dundal na ko matal na ko sëkk lu nàkk sunu wetu bopp lay manqué waaye ak wetam moom na ko ndax lépp loo xamante ne lu ko war rek digganteem ak barab boobee mu jëlee la mu am mi ngi koy def waaye lépp loo xamante ne si bay sëriñ nga xamante ne waxuma sax doom waaye absolu sax boo gisee ñu ko ci moom la bokk dina ko jox xorma yi ni ñuy joxe ñun ñii suñ kilifa yi mbàkke mbàkke yi xorma dina ko jox xorma yi kon moom bés bii nga xamante ne moom lañ teewee nii mën nañ lay yónnee wala muy téléphoné tey daal sës ci julli yi waaye li muy xam xam xam xam day ñëwal boppam ba des ñu ewu jàll si boppam man ren jii bi may woo yaa ngi daal di ma fi bëgg a jàll si dama ko wax ne ko naa la ndax suñu yëngu moom mooy suñu kilifa day mel ne boo xasee àgg fa moom rek doy na sëkk waaye tëral na maa njëkk njëkk rek gis ko loolu nag kon partage la boo xamante ne bu dëgër la bu dëgër la itam loolu wax digganteem ak bàyyi sëriñ di ñaan suñu borom mi nga xamante ne dara tëru ko la ko bàyyi sëriñ dëgër te waxtu wu nag du ko nettali waxtu wu na yàlla gis du ko jëmee kanam te waxtu wu na rek. mu ngi koy nekk garab bi ñu ne mu may nga xamante ne dal na ko ak ko ci suñu borom jaarale ak fi ko suñu borom la tàggatale ay nit yoo xamante ne ñoo ko faj ba wéradi gi jàll ci wet yëpp waaye nee na lépp delloo na ko ci bàyyi sëriñ ndax ba mu koy yiwi la mu ko waxal loolee mooy feeñ ci mbiram ba léegi noonu mu ko xamee nag moo tax mu ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xamante ne dara tëwu ko liggéey bi yàlla na ko jëmee kanam yàlla bu mu amum ndox yàlla bu mu am gàllankoor barke sëñ Tuubaa ndax olof dafa am lu mu liir dani ku ñaan ñàkk waaye boo jëndee am moom la daa jënd ba am maanaam fi mu ne la nga fa liggéey doom bi bàyyi sëriñ bi fa nekkan ba ba ba sëtal te liggéeyoo ko itam na nga ko man a jëriñoo doo ko mën a jëriñoo ndax mbir la moo xamante ne rek dañ doon jaay ñu jënd ba am te nan fa nan ko taxawoon a ñun ñi nga xamante ne ay doon ko woon ndax xëy na fekkoon na sax doon bopp waaye mënewu ko ndax boole woon na yor daara ja ci liggéeyu njàngale mi waaye boole woon na yor daara ja ci jamono yooyu nga xamante ne mbaya xew ci dig liggéeyu tool yi waaye boole woon na yor daara ja ay liggéeyu kër gi nga xamante ne da koo nopp rek ci fànn yëpp naka jekk nag am na ay jëwriñ yoo xamante ne yu ko jiitu loolu yoo xamante ne naka jekk dañ fa daa ne waaye nag boole yett yëpp maa ngi téye ko ci loxoom te dara suuf loolu moom dimbalul suñu borom la suñu borom la defalal na ko nga xamante ne noppalal na ko ci lépp lépp saa bu ko bàyyi suñuy message gis rek am xelam day dal muy ca tool muy ci kër gi muy ci liggéey njàng mi lépp luy loo xamante ne ab cooral daal biirum la fa nekk doon fa jéeru yi yenoon dal nag yàlla mi nga xamante ne moo mën a fay yàlla ko fay yàlla ko yàlla noppal yàlla yàlla guddal aw fanam yàlla yàlla yokk ak wéram ci barke Sëñ Tuubaa du soññi wax nag sama bokki dong yaa xamante ne ñoo bàyyi ko ci barab bii dina wax ne képp koo xamante ne ñëw na bi baa mu di leen jàppale neen xam ne da leen di dimbali waaye nag fii yéen lépp yéen la war te di ngeen àgg jamono boo xamante ne di ngeen bëgg a jëf ci moom te day mel ni jëf ci moom dootu yomb baa dina bëri ñu ne di jiitu kon maa ngi leen ci soññee bu baax soññee bi nag dara jiitu teg yi nga xamante ne moom ngeen di toppee di ko di ko sosoo ak mu leen ngeen fexe ba teg yooyu dara bañ ci jógee di jëm ci bis bi bu leen ko defee ba ba bis bi ngeen yaral ko seen bopp def ko ay jaayante yoo xamante ne ku ne danaan maa maa jaayante lii ba li fa war a somp lépp somp nga xamante ne li suy dajale moom nii woo bari day delluwaat ci dara ci daara ji loolu maa leen koy dégg di ñaan suñu borom mi nga xamante ne mooy ubbi buntu yi. te suñu Saliou Mbacke daana wax ni ah, bari la na ko lool te doyewu ko dara yàlla leen ci jox lu doy sëkk ba li ngeen yéene ci moom ngeen mën koo mottali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf rasulullahi sallallahu alayhi baax rek yow wallaahi joxal borom xam-xam yi ñuy wax man wax dëgg yàlla ak ndoom laa rek jànguma xaw ma dara da nga am la ñaan ci yàlla in sëriñ Tuubaa yàlla yàlla doole la dimbali yàlla yàlla suñu dimbali daara yàlla suñu dimbali ñooñ daara yàlla mu saytaane yoon ci daara saytaane yàlla mu amul yoon ci daara yàlla mu am saytaane mu am ci yoon ndongo daara aw yoon mu am sëriñ daara aw yoon bi jaay rasulullahi sallam yàlla yàlla suñu dimbali bi jaay rasulullahi wa salaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنا بنو سانتي سن بروم سبحانه وتعالى جل مصطفى صلى الله عليه وسلم tey jaajëfalaat Cheikhul Xadim di yeesa suñu jaay di ci moom ngi leen di bu baax a baax del si den ndokkeel ci bisu tedd yi nga xam ne ci la ñu nekk rawatina yi nu yi nga xam ne moo gën ci mboolem bis àdduna yépp muy al ashra awail min al hijja ñu ndokkeel ñëpp di balu ñëpp xàq di ko bal ñëpp ñuy sëñ Modou Mahfous mii nga xam ne bu baax a baax baax ndokkeel ci liggéey bu rëy bi nga xam ne ca la nekk te yàgg ci lool jël ak dundam lépp jox ko yàlla kàttanam xelam xam-xam lépp mu jox ko yàlla loolu dina am solo ko ñaan yàlla gën koo dëgëral gën ko kàttanal ba yéeneem lépp yàlla mottali ko di nuyu kilifa yi ñu fi fekk yëpp sëñ Cheikh ne jot a fekk ci waxtaan am na solo lool jàpp naa ni féetoo lépp noonu la mel kon naka jekk sa kàddu gi naka jekk mooy genn kàddu gi nga muy waxi positif muy soññee nit ñi xam lii mooy lan ba ko war a jox ñu jox ko ko ni ko war a jàpp ñu jàppi ko nañ ca war a jëf ma fuus nekk nga xam la def dundam loolu la koy liggéey Sëriñ Tuubaa moom rek ak bëggam moom rek ab toolam itam daa mas a wax ne koy bañ mu añ fàttale nooy def benn saalim saalim ni ko xanaa faa faa dal waaram faa dal waaram mooy dangay dal ci waar mooy dangay dal ci ab toolam rek bàyyi mu ko tigi ba man nag sama waar mooy alquran ko ca ne du ma ñu fàttale suñ borom it takke ku ngëneel lu màgg màgg màgg ndax suñ ndaje mi ndaj ci ndaje yi gën a màgg la bokk yenn saa soxna ci hadis bon abdulaay bi masum bokk solo mu ne majtama xawmun fii bayti fii bayti fii bayti min buyutillah yatluuna kitaaballahi wa yatadaarasuuna baynahum ilaa nazalat alayhimu sakina wa xashiyatuhum rahma wa xafatuhum malaikatu wa zakarahumullah fi man inda amul mel na mbooloo muy daje ci barab te la leen daje alxuraan rekk lal ko lu dul ne su doon wàcc ak dal ci seen biir as-sakina daan wàcc ak dal ci seen biir yërmande suñu borom dana wàcc ci seen kaw fekk leen fa malaaka yi yërmande dañ wàcc wër leen yàlla daal leen tudd ci kuréelam mag muy almaluna ala kon lu màgg màgg màgg la kon nit nag war a fexe ba kon ak dundam mu saas ko ba fees del del del ci lu am njariñ lu ko am njariñ ëllëg lu ca ëpp alxuraan amut waxuma lu ko waaye lu ci lu toll ni alxuraan lu lu amee aw yi ni alxuraan amut nit ki moom nañu xam ne ñaari ñeenti dund rek la ñeenti dund lay dund bi ci njëkk mooy dund gi muy dund ci biiru ndeyam loolu yàggut juróom-ñeenti weer mooy la ci gën a bari mën na mën na ko yées waaye mooy la ci gën a siiw dund ga ca topp mooy dund gi muy dund ci fii ci adduna dund ga ca topp mooy alxayaatul balsaxiya dundu barsax nit ki bu faatoo ñu ñu denc ko duñ jàpp ne faatu nag lépp jax na waaye am na dundu bu muy dund foofa nga ca topp mooy dundu àllaaxira ñu gis nag dund ga ca ëpp solo yi yi ko jiitu yëpp ay maraaxil la maanaam ay jaarukaay rek la waaye at dundu àdduna gii nag lay tax dund googu am njariñ fii lañ koy liggéeyee eb nañ la faa ci ngir liggéey loola nga war a liggéey li nga liggéey na ëllëg moom ngay añe adduna ab tool la alaxira kër la su fekkee bët dafa sedd bi nga dem ca tool ya di tànn car yu sedd ya di ca yandu waxtu góob jotee da nga ñeetaat te lay tax kër gi ca tool ya lay jóge su fekkee ne nag waxtu da ngaa jóg ci waxtu ruuj ruuj faru jot nga faru mu taw nga bay baxaw walli bay bayat ba góob soo demee ci kër gi da nga mën a toog su loolu amul nag doo mën a toog ci kër gi kon àddina mooy tool bi fi la ñuy liggéeyee waaye li liggéey moom la ñuy aññe rek ëllëg ci googee te bar sax ma ngi daañu wax ne suñ suñ war du bar du bar sax waaye ber san la tudd ndax dafa mos a wax ne barsax de yaar rek fa am moom Sëñ Tuubaa ne barsax yaar rek fa am ak fooyu mawu mooy ni mbëttum noor di def xam nga mbëtt nday nooroo xiif ndax mbët li muy dund mooy ay xasharat ay gunóor rek ay soccer yax tax yooyu du am noor nawet lay am wala bu nooree nga xam ne amatul lu mu lekk day dem ci am lëm rek lemu fa na nooroo xi ba nawet ba mu taw ba yooyu tàmbalee mu door gën dara mën a am lu lekk na muy lemoo nga xam ne mu daanaka ay yax rek des ci moom jeex tàkk ci noor bi nee na ki dem bàmmeel te yóbbu fa dara noonu lay xale def ba keroog saa di taxaw maw rek ba sa ba keroog saa di taxaw mu ne ka fa am dara nag day fuyoo moom du ca may kenn ndax lam am du ko doy tax mu kañ la saadi tax moo tax may kenn kon ki amul dara maw ba bis penc kafandaat day fooy ak moom du ca may kenn kon maw ak fooy rek am foofu waaye defe naa ci alxuraan gën a fooyoo alxuraan dafa làmboo nga ñaayul àdduna ni nga nga ñaay dëgg dëgg na alaxel gën a fay waaye nag ñoom ku nekkal yàlla yàlla nekkal la soo ci féetee njal nga mën naa metti lool ndax su ma daa ci natt ba xam dëgg la ci am njëkk njaal bi dara lu méttee méttee métti la man nga dund jafe-jafe dund métti métti yu bari ba jàpp du yàq waaye soo demee ba ba suñu borom nag natt la ba ba gis na lépp ñu ngi ci sax ci nekk dëgg dëgg ci yow mu xéewalam na door ñëw xam naa daara ji mel nii ah, waaw benn benn néeg la fi amoon kon kon li ko mel nii lépp kon mooy nekkal gi mu nekkal yàlla te li li lii ñëwee noonu la leneen di tëdd ñëwee wax ndey gën di yokk rek yëkkati yëkkati ko lu la genn kilifa day wax ne ñett yëkkati ko moo am nga njëkk fekk da ngay yëkkati sa bopp te yàlla yëkkati wala da ngay mujj sonn toog rek ba ca toog ba fekk ni nit ñi ñoo la yëkkati nit daa baaxoo di yëg da yëkk nit dafa baax teg morom ci kaw ne dëkk ci teen nit baaxoo loolu yëkkite morom mu ne dëkk ci teen bu yàgg day yëg fekk si la mbaa ñu wàcc dañu wàcce yàlla nag mooy gàcce am njariñ li kii wax ne bu lee yàlla yëkkati boo bëgg tey ji suuf bay boo tibb yóbbaale ndax doo dootoo jëm suuf mukk waxtu ne di jëm kaw rek yëkkati ko yàlla boobu ci alxuraan rek lañ ko mën moo tax Sëñ Tuubaa lépp lu mu am lu mu rëy rëy rëy wan alxuraan mooy li ko ko may na alxuraan may na ma loo xam ne lu ñëpp teg bët la waaye may na ma loo xam lool yëpp du feeñ ba keru saari taxaw kon nag buñ ko yaakaaree dañ ca dañ cay taxaw ñaari tànk taxawee taxawaay jullit ndax alquran ci jullit lañ ko wàcce muy alalam ñu war caa taxaw ngir loola dundal ko ba ñaar mooy ay murid lañu yaakaar Sëñ Tuubaa Sëñ di alalam di léppam ndax nee woon alquran jàng ko mooy sama waajtaay mooy ci laa waaje sama classe bi ay bassin la ñuy waaje ay jasneer ay leen ngeen man nag sama waajte alquran lay waaje man alxuraan mooy sama taar alxuraan mooy sama métier alxuraan mooy sama mooy trésor mooy sama compte bancaire kon buñ ko yaakaaree nga tam dem na ci alxuraan kon ko mooy féete ci alxuraan ngir moom mooy li si mu taxaanaan nañ jàmm yàlla bu baax liggéeyal ko Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa bu baax jàmm ko yàlla wax ju xóot xóot la wax ju xóot la ju jar jàngat bu baax a baax kon lépp kon mooy ñaari tànk yooyu ñuy taxawe moom mii nag bañ ko xamee ba léegi ñuy ay ndaw ndax bañ xamante yàgg na boobu ñu ñëpp ay ndaw lañ bokk daara ba léegi melukaanam bii musa soppiku pas-pasam bii musa soppiku doxinam bii musa soppiku te koo xamante ni ko xam def naa li wattoo alxuraan ci loxoom xanaa moom sax xamul nu mu toll lim bi mbaa mbaa mbaa mbaa bu ko bëggee xam ne daan ci am diir ci ci te te te ñàkk sax mu fàtte xëy na te du ñàkk it ñu jóge ci moom sampaat yaa mu nekk sadaxatum jaariya boo xam ne ndax euh, salaf sa newoon na nit ki bu faatoo lépp lu ko daa may tiyaaba dafay dagg ba mu des ñett ba ci njëkk mooy li ma tudd léegi mooy sadaxatu jaariya mooy loo fi bàyyi lool am njariñ dangaa samp daara bàyyi ko fi li fekk daara jaa ngay dox ngeneel yi wër li fekk ci sa bàmmeel fekkoon na ngaa gas ab teen wala bënn fara bàyyi li fekk nit ñaa ngi cay naan ngay jot ci sa wàll fekkee da nga jëmb noonu garab nit ñu teg toog ca kër ga li fekk ña ngi toog ca kër ga ngay jot ci yiw daara nag ba ko ñaareel mooy mooy ba ko ñaareel nga bàyyi fi am xam-xam ba njëriñ ay min yun tafa aw bi mooy téere boo jàng téere boo jàngal nit muy wéy di ko jariñoo mbaa nit ko jàngal muy jariñoo xam-xam ba wa illa téere boo bind nit ñi di ko jàng li fekk ña ngi ci jariñ ca xam-xam boobee yiwa di la fekk fa nga nekk wala mu bàyyi fa doom ju baax mooy ñetteel bi doom ju baax mu di ko ñaanal alquran dafa dafa boole yëpp alquran boo sampee daara koo ma a jàngal ak ko alquran jo ak ko ku mu jàng ko ku mu jàngal lu mu bari bari bari ñëpp ku ci nag lam am ca xam-xam waxtu da sa bëlis dañ ci sa bëlis dañ ci jot sa bëlis araf bu mu jàng rek nga jox sa bëlis ca ca rapport bi jàng comme jàngal noonu comme jàngalit noonu soo bàyyee daara ji dem daara ji ba tey sadaxatu jaariya la njàng maa ngi wii njariñal xam-xam dee fekk fa nga nekk ndax yàgg ko sampoon sa doom jàng jàngal fan rawatina mu wutu la ca wéyal sa liggéey ba tey lool kon day mel ñett yi mu tuddoon yëpp daar day ñëw boolewaat boolewaat ñett yëpp kon ne xam nga kon yiwu rëy rëy rëy daara nag yéemul ci ki yor di sëñ sëñ Mahfouz moo fi toog di jàngale waaye du caa du caa yiwu ci moom dong la yem yow mi passif woon ca mbaar mañ fa def li fekk ña ngi fay jàng ngay jot ci sa yiw yow ma fex ba ab làmp tàkk fa ñu di ko nit di jàng li li fekk loolaa ci sa fi indi basan ñu toog di jàng yow ma fi dugal sa alal lu ak lu mu mën doon rek li fekk ña ngay jariñoo loola yow donte yaa ngi sa bàmmeel sax yiwu loolu def fekk fi nga nekk nañu xam ne kon yiwu alxuraan kon lu yaatoo yaatoo yaatu la te ca ba nga tàmbalee la la yiw a tàmbale na ko suñ tabaa waxe waa xaytuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu aliyu wa walidayhi wala may yuallimu baraata min naari fal taxnamu saa bu ñu indee dong bi ci daara ji ñu teg alwe ci ëllëg ne ko baasin miim mu wax ko ne ñu jég ñu ñu far turu donga bi ca sawara far turu sëriñ daara ba far turu ñaari waajur ca sawara ñu bind leen ak dañ ca sawara nga xam ne ñoom dootuñu tàbbi sawara ca dal rek bàyyi si ji rek kon nag lekk ko jàng ba mokkal ko na kon léegi yiw ko kenn xamul nu mu toll rawatina muy mu wéy di ko dund di ko dundal kon ñu ngi lay ñaanal yàlla gën la kattanal bu baax a baax a baax xam ne li nga nekk doo ngay dara loolu doo ngay li ci des dara àdduna ji du dara luy jeex la sëñ bi wax na ko léegi si Tuubaa loolu wax léegi wax sëñ Tuubaa la wax sëñ Tuubaa dafa wax ne nit yent yëf rek la am jëmmam ay bokkam alalam jëfam sa jëmm jee soo demee ba xamitoo ñam wu neex wu naqari xameetoo lal bu nooye ba ñagas bu ñagas ñàkk nga sa jëmm say bokk fësës say bokk bu ñu la taxawoo ba sang la sang la jullee la sol la ñàkk nga say bokk sa àll la fa sës saala bu ñu ko seetee bu fay say bor miiraat sa cere bu ko jot ci wàllam ñàkk nga sa sa jëf fa sës dan sa jëf jiina moom nga dul soo sooy ju baaxat ngeen ànd ba aljanna su dee safaan bay safaan ba rek kon loolu mooy li am solo kon kon na xam kon ki jël kon ak dundam jox ko alxuraan yaakaar naa jëfam dana neex wétali ko lool bu ëllëgee ndax sa jëf rek lay wétali nag bàmmeel say jëf doo nga lay wettali su dee jëf ju baax day soppi ko ay jëmm yu rafet yu taaru yu neex kaddu yoo sawat ñoom lool ñu ne ci yow di lay wettali de di la xéewalal bi kon ngay tabi aljan day mel yaa ngi aljan di tabi aljan dundug sax nag eh, ma fi ne àjjana tijjeeguti buntam saw tijjeeguti buntam ñi faatu ñëpp ña nga barsax diggante waaye nag ki texe bàmmeelam day xéewale ba mel ni mi ngi àjjana ndax dañ koy ubbil lu mel ni fenêtre bàyyi ko àjjana muy dund climat àjjana di yëg neexitu àjjana di dund bànneexu àjjana mel ni mi ngi àjjana téemagudu àjjana ki texee di it dañ koy tibbi tijjil fenêtre bàyyi ko sawara mu mel ni mi ngi sawara muy dund tiisu sawara tàngooru sawara metti safara naqoor sawara te fekk demagudu sawara ëllëg saa bu saa taxee ba sunu àtte jaam ñi rek ci la doon door tijj àjjana tijj sawara ko ne dem sa kër dund ba sax googee nag lañ fay dunde mooy lu ñuy jëf fii ci àdduna ku ne yaay neexal sa bàmmeel ku ne yaay naqari sa bàmmeel am dañuy wax ne néeg boo sañc tey tey tey lal ba di tey mat laa bi tey di tey boo fa dajee ay matt yaa ko fi yóbbaale kon bàmmeel nag imma rawdatun min riyadil janna aw xurat min xufri naar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw kàddu yi de bu doon kàddu ndax lii suñ ci wax mën kaw kàddu ñaari fànn rekk la nekk muy ak cant ak xamle muy son dëgg dëgg taxawaay daal ñaar ñaar yooyu rek lay nekk leen di dëkk ci sëriñ Maam di sunu sëriñ di sunu xarit di sunu wëllëg ñoo lay sant bu baax Mbacke ñaan ko lool ànd ku wér di bàq si suñu tool euh, di ci teg euh, suñu kilifa yi fi nekk. muy sëñ Bassirou Guèye mi nga xam te ne bàyyam tey jotaay bi moo ko war ndax lu ma xam ci alxuraan moom moo ko xam ñu muy waale suñu kilifa sëñ Abo Guèye amoon nañu yéene teew lool waaye wax mooy naat yi yàlla wax sa yàlla sa loolu ñëw ci seen ginnaaw ci kaw bi nuyu bu baax a baax a baax sëriñ Moustapha Sarr li nga xam ne moo la yàlla def tey jotaay bi doom kër seen Bassirou Sall du ko ñaanal suñu borom bi ak gën a yéwén amoon na yéwén teew waaye xëy na euh, ngant la bayaloon na doomam du ñuy wax sëriñ Bassirou Sall ak sëriñ Samba Am ak ku ñuy wax Mame Seck jërëjëf sant na ko bu baax a baax da euh, ko xamal ne ñun pour toll noonu fekk la suñu fële ak suñu suñu sax ndax dal bii mënu ci mënee toog man ci liggéeyal suñu Tuubaa ndax yàlla moom ñoo ngi koy sant te ko ñaan sant suñu yi nga xam ne lépp lu teg ñaan nga cee dugg ba bisu tey jii seen cant mu ëmb ko yàlla na leen yàlla defal ba kër sa jot barke alxuraan di nuyu yëpp ndax taxawaay bi mu taxawaay ak na lool mu sëriñ Aboo Jaxate eh, di doomi sëriñ As Jaxate xëy na jotaay bi mu taxaw tey maam naa ko taxaw mu sëriñ am sutura yàlla def mu dem fenn ren yal na ko yàlla indi jàmm lépp lu ko ñaan yal na ko yàlla nangu lépp suñ tubaab waaye léegi mel na ne taxawaay bi mu taxaw yi bu si ñëw si ci nekkoon yi du ko des kon jërëjëf jërëjëf jàpp ñuy ñu àndal yëpp moo di leen waaw Papa Alam Sarr Diop maa ngi leen di nuyu gis nañ seen taxawaay ci ñun gis nañ seen yéene ci ñun gis nañ it ndax ñu ñëw a jàppale ci liggéey bi seen tool ndax ñu yàlla àggali yéene yëpp ah, rawatina ñu toll ñi nga xam ne ah, dana fa am ay turkaan gis nañ seen taxawaay ah, lu xat-xat yi ñu lu mu bay boo xamante ni nii ku xool da nga ko wóor eh, rek moo tax mu ñëw wala loolu ak naan mu seen bi benn ñoo ngi lay nuyu di ñaan mbéy mi yàlla na ko ñu loolu am ko wér di di nga fekk la fu mu doon suñu kóllëre dàpp suñu tubaab jërë ngeen jëf ñun ñëpp yàlla nañu sëriñ Tuubaa nangu suñu liggéey ginnaaw loolu nag ñu euh, suñu ndongo yi nga xamante ne lépp noo ko wax di jiital ci mu euh, sëñ Abdoulaye teel sax kon laa xam si ndax kat suñu kii bi dina fi toog ñu mbàkk mbàkk yi mbàkk mbàkk bu nekk rek mu ñooy suñu kilifa muy sëñ Bassirou Mbacke moom mi nga xam ne jotaayu dong yi moom moo fi kilifa suñu kilifa yi dañoo kilifa xëy na suñu loxo naa ko waaye muy suñu kilifa di ko nuyu baax Mbacke di nuyu Sara sëñ Modou ak Mbacke Mbacke yi nga xam ne am nañ ci daara yëpp ñoo ngi nuyu suñu solo taxawaay ah wax dëgg yàlla taxaw bi mu taxaw rek ak saa yu yàlla nañu yàlla moom def ngeen di moom mbàkkale di ko doon fan yi lool am na fi dina amal képp ku tudd bi xat-xat yi rek moo tax waaye sant nañ ñëpp li ñu ñaan mooy yàlla suñu doon nangul ci bu ci nekk di di di kii te xam ne ne istajiibuu lillaahi wa lirrasuuli izaa da'aakum limaa yuhyiikum rek loolu suñu jëm waaye nag yàlla nañu yàlla fay yiw jërëjëf si ab lëy doom yi maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla wax na nañu li gën ci ñoom te ñor ko mu alxuraan bi dañuy tuddee ba tax na kuy gannaaw suñu tuddee ci xam nañ ko bu baax a baax xam nañ yonent bu baax a baax ñoo ngi ñaan yàlla yéen yàlla dimbali yàlla yéen yàlla defal euh, lu koy seen dox ba lépp lu mu yéene ci ñun yéene ko ci daal yàlla def leen ci lu koy seen dox ndax ko alquran sant ñu ñëpp ñu gën ñu kenn parce que moo ci am solo ci xam ne da cee gën jëf li ngeen sax it mooy taxawaayu daara ji daara ji daara ji suñu Tuubaa la mooy suñu tool bi nga ni moom la ñu liggéeyal suñu Tuubaa ci amul benn pas-pas ak benn bëgg-bëgg lu liggéeyal suñu Tuubaa ci Alxuraan tool bi nag sant nañ ci bu baax a baax baax. ndax mel na ne euh, lépp lu ci yële rek mooy ci njàngale bi ak taxawaay bi ndimbalu yàlla ak yéen dugub seen tool tax na ba lépp am jafe euh, donc sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax waaw daara ji ab taxawaayam mooy li ma wax daara Sëriñ Tuubaa la daara joo xamante lii suñu royukaay ci moom daara ji mooy daara li nga euh, mooy daara mag ñi daara mag ñi nga xamante ne euh, bokkoon ci daara yi suñu tuwaa sampul ñu ngi mel ni daara yi maam Thiaw bi wala ñu koy maanaam daara yi suñu Abdourahmane Lo daara yooyu mooy suñu taxawaay Eh, ginnaaw bu ñu royee ci daara yi dañu jàng ñu daal di ñàkk te am naa yaakaar ni daara ci ñàkk ci ñàkk yi seen taxawaay mooy daal yooyu kon eh, loolu mooy jëm ni taxawaay daal di ñaan nag ngeen saraxnu ak ñaan foofu man ba leen ci yéen yëpp yëpp ci liggéey suñu tubaab yàlla dafa ko ci kaw ba lu ma ko bëgg a àggali tëdd du man li sëñ bi maam moom ñu wax yàlla na ko yàlla defal moom bu demee ba dem ba mënatul mbon euh, yi mën aw aw barkat mbon yi yëpp dana wax nu moom amul benn bëgg-bëgg amul lenn yëpp ñu jël kenn ñu jàngale képp ci nekk ci yow ak yow dama ko def kenn du ko def Sëriñ Tuubaa mi ngi moo koy def waaw loolu daal eh, naa ne woon nekk saan ay kàddu mu kàddu loolu sant nañ baax yal na yàlla yal na yàlla taxawu suñu kii yi teew doo soog sax ñun eh, yal na yàlla defal ko lu gudd di sant yi ñi na ci daara ji ñun sëñ day waxee am na nga xamante ni mu tudd sëñ ndax ba euh, sax ndax ba maa tax ba doon tey rek a tudd ba tudd lii ba maa tax ba doon sëñ moo doon sëñ boo xel as bi kon kon tudd jël ba fii masoon na sëñ wala am wàllu ci كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة وقالت في الإنسان كل ما صنع عمل kenn jëf jëf donc nag fii nga yàlla rek ñu ngi jëm yàlla ma fay yàlla ñu yàlla fay fekk yow seen jot daal ñu yàlla saxal ci un tout sant yi utilisé suñu borom faw bisu daal ma mën jërë ngeen jëf sant ñëpp réewum jàll jërë ngeen jëf